Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf fitna gi jibati ci campagne électorale bi yéeni yu bëri xëy ci tey réew mi quotidien bokk na ca mi wax ci li nga xamante ne moo xew ni ki démb ca Koungheul muy cortège Ousmane Sonko njiitel Pastef bi nga xamante ne dañu ko attaqué yéeni kaay bi dañu xamal ni bëri na lool li nga xamante ne moo fa am ni ay yàqute waaye tamit ñu ca jëlee ay gaañu-gaañu bokk na ci ñoom Malick Gakou mi nga xamante kenn la ci allié Ousmane Sonko caravanu Sonko ci boppam la ñu attaqué bu ñu sukkandekoo ci laas mi xam lay tamit ni benn ci garde koram daal dinañ koy gaañ Malick gàkku moom nee ñu ci loxo la am fracture l'observateur mi dikkaat ci fitna googay xew ci Koungheul yéenekaay bi duppee ko bëccëg bi nga xamante ne dret walangaan na ndax ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ay woto ak i moto yi nga xamante ne dañu ko yàq-yàqeet centre de santé bi nga xamante ne moo nekk ca diwaan ba dañu ko mujj soppar ñi bërëbu xeexukaay Malick Gakou ci boppam loxoom mujj na ci jëlee ab fracture ci loxo càmmoñ violence bi am démb ca Koungheul les échos xamale ni foo ko nat weesu na ko ndax cortège Ousmane Sonko bi nga xamante ne attaqué nañ ko ci anam yu métti foofe ca diwaanub Koungheul ñi ci jëlee ay gaañu-gaañu bokk na ci Malick Gakou waaye gannaaw attaque bi yéenekaay bi di ñu xamal ni agent yu GIGN nga xamante ne ñooy garder Ousmane Sonko ci boppam daal dinañuy riposter mu métti woon nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo amal cong bi mujj nañoo attaque bi mujj nañ koo yàq ñi def attaque bi nag Vox Populi mu ngi ñuy yëgal ni du ñenn ñu dul waa takku wàllu ndax ñoom ñoo attaqué caravane Ousmane Sonko ca Koungheul mu bëri ñi ci jëlee tamit ay gaañu gaañu ba ci Malick Gakou jamono jooje Ousmane Sonko ci boppam di wëyal campagne am l'info yéene kaay xamal nu ñi démb ca bassin arachidier daal moom njiital jëwriñ ñi mel na ni kuy charmer ñi nga xamante ñoom ñooy béykat yi li mu leen dig nag bokk na ci lépp li nga xamante ne yor nañ ko ni gerte dinañ ko jënd benn kilo du des seen loxo njëgu kilo gerte gi ci boppam moom Sonko nee na prix bi daal daanu fexe ba dina neex lool ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi ci seen wàllu bopp yor-yor bi mel ni ku koy feelu nekkoon démb diggante Kaolack Kaffrine ak Koungheul Ousmane Sonko programme am bi ñeel mbay mi ak élevage moom la daal di jukki ci kanamu béykat yi jamono nag ji mu koy fësal Walf Quotidien du ñu xamal ni sàmm sa kàddu ña nga woon ca beneen boor ba di ŋàññi li nga xamante ne moom mooy projet bi rawatina doxalin wa ci wàllu bonne gouvernance doxalinu ak léegi ci la enquête xëy ni ki tey ji di wax ci jéego ak ndam yi nga xamante ne kër gi am na ko waaye tamit ay doxalin yu ñaaw yu ñu fa nemmeeku diggante Lamine Gueye ba ca Caroline Faye bëri na ci ay góor ak i jigéen yi nga xamante ne seen taxawaay fësal na lool ci pencum ndaw réew mi yenn saay nag nga gis ci ay débat yi nga xamante ne day tàng jib ba laale jot cee am yenn saa it ay ndaw daal di fay wane seen bopp mu mel ni dañuy défier code yi ci seen wàllu bopp ku ñuy woon yéenekaay bi dañu nettali Macky Sall lu muy dund jamono ji foo ko nat weesu na ko ci xeetub trahison waaye tamit yokk ci galère gu mat sëkk li ko waral bokk na ci ñu bëri ñi mu àndaloon dañu koy daw jamono ji ñenn ñi sax dañuy dem bay rejeter ay appelam appelu Bougane Gueye Dany ak i awokawam atekat bi démb ca Tamba mujj na koo dégg bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien mi xam ne ni moom njiital mouvement gëm sa bopp mujj na am ab liberté Sud Quotidien di ko dëggal di xam ne ni kon moom opposant bi benn weer ak si la ñu ngàll ci ndodom moo tax yéene groupe sud communication bi di xam le ni Bougane léegi mën naa soobu ci campagne am waaye dina fay ab ndàmpaay bu toll ci cent mille francs CFA Sénégal war a bokk lu toll ci cent quatre-vingt-un milliards ci CFA le quotidien yéene kaay di xam le ni kon ma ngay aju rek ci emprunt bu yees bi nga xamante ne nguur gi ci boppam def na ko gannaaw suspension programme am ak FMI JP Morgan moom moo nekkaat intermédiaire bi naka la ko doonee rek juróom-ñett fukk ak benn milliard yi nga xamante ne Sénégal ci boppam dina ko mobiliser ci marché financier international bi mu nekk koppar gi nga xamante ne dañu ko war a jagleel financement ak exécution budget at mi ñu dëgmal budget bu ministère des sports moom ay luuxur la ñu fa nemmeeku ak i njombe libération mi ci xëy tey ji di yëgle ni lu ëpp juróom-ñaar ci ay milliards moom moo réer may diggante weerub janvier ak weerub mars bi wees jëwriñ ji ñu dénk wàllu tàggat yaram di relations internationales yi daanaka lépp lañu daal di jeexal ci ñetti weer kepp lu jege juróom-ñetti milliards yi nga xamante ne daan nañ koy dépensé daanaka xaaju milliard ak lu teg kese la ñu mujj justifié réew mi sport di justifié ana lan moo waral boo moyul Edouard Mendy du bokk ci jongante Sénégal Burkina Faso bi ñu dëgmal yéene kay groupe réew mi network bi di xam ne ni kon moom gardien de but sunu gaynde dafa ameewaat gaañu-gaañu ci clubam bi di Al Ahli ca Arabie Saoudite ca Angleterre démb Pape Matar